don wax ni am na sujet yu bari yi nga fi doon euh, euh, waxtaanee jëmale ci li nga xam ne moom mooy suuf si jëmale ci li nga xamante ne moom mooy yoon justice jëmale ci li nga xamante ne moom mooy taxawaayu Sénégal ci wàllu diplomatie euh, ñu nekk ay sujet yoo xamante ne ay sujet yu am solo la ñu gëm ni li président Bassirou Diomaye Fay tàmbale ci réew yi nga xamante ne mi ngi koy visité mu nekk les pays donc de de voisinage lu am solo la donc loolu il faut ñu continuer ko ndax euh, Sénégal mu ngi nekk ci espace boo xamante ne ñaari espace benn mi ngi tudd UEMOA benn bi di nekk la CEDEAO te xam nga ne CEDEAO dafa nekk espace boo xamante ne léegi askan bi askan bi nekk biir CEDEAO gëmatul CEDEAO ba tax na am na réew yoo xamante ne bokkoon nañ ci muy Mali muy Burkina muy Niger génn nañ ci espace boobu ba dem nañ ba créer li ñuy wooyee la confédération ñu ngi xaar confédération boobu nag naka lay doxee ndax day doon confédération boo xam ne benn njiit moo ci nekk ak ñetti gouverneur yi nga xam ne ñoom ñooy nekk Mali Burkina ak Niger waaye en attendant ñu egg si loolu dama gëm ni président Diomaye Faye dafa war a am benn rôle bu am solo bu mu war a joué ci loolu. ndax réforme bi ñu war a def ci UEMOA def ko également ci CEDEAO il faut ñu def ko dans le cadre donc de ce projet bi nga xamante ne confédération bi ñu koy am parce que loolu chance la kon nag bu suñu président demee dugal ci loxam waxtaan ak njiit ñi fa nekk je crois que loolu mën na doon euh, njëriñ ci Sénégal waaye doon njëriñ ci li nga xamante ne moom mooy UEMOA ak CEDEAO bi nga xamante ne euh, dañ leen war a réformer en profondeur. suuf si nga xamante ne tamit gis nañ li mu indi ci jafe-jafe jëmale ci askanu Sénégal ci wàllu dundin ci wàllu kër ci wàllu tabax loolu faaw ñu taxaw ci mais taxawaay boo xamante ne du ay démagogie moo koy moo koy lal wala populisme moo koy lal il faut que ñu toog créer peut-être même ce qu'on appelle les assises du foncier taxaw xam ni parce que xam nañu Sénégal tey léegi pour nga mën a dund liggéey am salaire par mois ba mën a tabax kër xam nañu lu jafe la te loolu nekkul yoon ci réew boo xamante ne sénégalais yi ñoo ko moom donc il est important que ñu def ay réformes yoo xamante ne en profondeur sur le foncier et je crois que xam-xam bi nga xamante ne moom la soxla pour ñu def ko mi ngi ci réew mi nañu jël mbir mi teg ko ci yoon fi ñu ko war a teg ñu teg ko et ñu mën a indi yi nga xam ne moom mooy ay solution li nga xamante ne tam moom mooy

moy réew mën na am perception bi nga ne la justice bi wala ci bi bu perception bobu baxulé rek kon perception bobu mom moy doon kon en sorte que askanu Sénégal le justiciable en sorte que ni justice am mu doon bu rafet la pour nga def ko nga ay bi ci ni dina sorte ko waaye bu ñu ko defoon di ngeen gis ne dina régler li nga xamante ne moom mooy de la justice mooy ñu supprimer ministère bi ci boppam. boo supprimer ministère bi nga mettre en place une haute autorité de la justice boo xamante ne ki koy incarner waa conseil supérieur de la magistrature ñoo koy tabb boo jógee ci loolu nga jël li nga xamante ne mooy conseil bi ci boppam nga réformer en profondeur li nga xam ne moom mooy doxalinam de sorte que moom lépp lu mu jël ci dogal jëmale ko ci magistrat yi ci wàllu promotion parce que olof Ndiaye nee na ku la abal bët moo lay wax fi ngay xoolee kon nag. ni ñu def en sorte que conseil bu décidé ne diw dañ ko war a nommer ci lenn gouvernement bi bañ ci am sañ-sañ parce que bu ci amee sañ-sañ rek kon magistrat bi fekk moom mi ngi xam ni sama nomination wala sama carrière mu ngi ci loxo diw ak diw kon kooku bu ko nee xoolal fii mën naa mu xool foofu mais boo jëlee li nga xamante ne moom mooy dogalu CSM nga raan ko li ñuy wooyee opposable maanaam gouvernement du ci am sañ-sañ kon di nga mën a régler euh, li nga xam ne moom mooy jafe bi bi si mujj mooy Euh, li nga xamante mom moy euh, euh, les cours des tribunaux Manam fiñi dogalé fiñi fi Amna àttee biñu na par le passé newoon na et lolu sax réforme bi demoon na ba porté ko moy manam juge bu démé bay daan doomu adama nako def dans le cadre d'une collégialité Manam, dina waxtan ak ñi mu ñu ñi woyé les juges assesseurs parce que xam nga prison dafa don lu doy war soo jëlee doomu aadama nga yóbbu ko prison maanaam da nga ko dugal foofu mu nekk en mandat de dépôt muy détention provisoire wala nga jël ko nga tëj ko fekk te xam nañu suñu askan nit ki bu duggee prison rek automatiquement dañ koy ragal automatiquement yàq nañu àddunaam kon kooku balaa ñu koy dugal ci prison il faut mu doon loo xam ne lu leer la kon la collégialité na doon lu ñuy renforcer waaye au-delà de tout pour ñu mën a garantir li nga xam ne l'indépendance de la justice faire en sorte que justice mën considérer bopam comme un pouvoir Moi, nañu jël magistrat yi bu ñu ba pare ñu soumettre len au vote du peuple faire en sorte que d'autres né justice pouvoir la bu bot ci exécutif parce que ni exécutif mis sañ-sañ jëlee ko ci askan bi su boba mom tam non lay amé sañ-sañ ko ci askan bi donc bu démé ci trois niveaux de réforme après il y a un certain nombre de questions techniques yo y tamit dinañ ci dugg manam li ñuy le sursis à exécution au niveau de la Cour suprême loolu dafa doon problème bu bu doy waar boo xamante ne dafay créer li ñuy wooyee un engorgement des rôles maanaam doxalin bi nga xamante ne Cour suprême war na ko am ci li ñuy wooyee le rôle de la justice les sursis à exécution da ciy poser problème kon loolu tamit nekk ay question technique yoo xamante ne war nañ ko xool en profondeur non diplomatie kenn du ko dénkaane parce que dafa am loo xamante ne moom la ñuy wooyee chasse gardée président da ci bokk li ñuy wooyee la politique budgétaire mooy comme comme askanu Sénégal

kattan ak sama sañ-sañ nga xoolal ma li nga xam ne moom mooy koom-koomu askan bi askan bi dafa ne comme yow jox nañ la suñu baat ak suñu sañ-sañ kon ni ñu tabb keneen koo xamante ne moom yow ni ngay doxalee moom ma koy bind noonu la législative juddoo kon législative yi nga xamante ne moom mooy bind ni état di fonctionner ni exécutif di fonctionner ñu bind ko moom it ñu ne na kon keneen ki comme yàgg nañu gis ne ay nit mën nañu jàppante ñu pour ñu évité li ñuy wooye ku mën sa morom duma nañoo jël kenn ci ñun kooku nag moo ñuy àtte kon li ngeen di dégg ci loolu mooy ñetti pouvoir la askan bi jagleel ñi ko war a représenté muy exécutif muy judiciaire muy li nga xamante ne législatif